yii nag 16 eh, laxas yi moom yàmbaa la def 16 yi yeneen yi pon la ak cigarette lii dirian ah? non du dirian ah, boobu garab la ma garab la ah waaw kon nan ko sànni moo doon garab la quoi mooy pon yi ak restaurant bi garab yi ñuy diwoo quatre personnes yi dañ fi jàpp ñun biñ demee li nga ñu sant rek lañ def. Ah. mooy dem nañ sëñ bi sax li loolu wax sëñ Bas da wax naa ma dañoo war a xaar la. ma ma ne ko damay yaakaar ne xëy na waaye. non non jox nga ñu ndigal on va la on va l'interpeller jeex na opération bi def nañ ko xoolal ñun bi ñu demee euh, am na ñett ñu ne ci oto bi dañuy bañ ñu jël seen jëm wala ñu filmer leen yow nag mën ngaa wax ak ñoom fi ñu toogoon ci pono bi ci mbalit mi fi lañ jëlee cigarette si fi lañ jege lii fi lañ jëlee yamba bi comprendre nga. yamba bi nag jële wuñ ko ci seen loxo directement hmm. mais fi ñu toogoon fi lañ fekk mbuus gi dégg nga ñu biñ ñu dañoo daw bi ñu dawee ñu dàq leen ba jàpp leen ñoom it euh, wax dëgg yàlla wax nañ ni duutuñu tux duutuñu jaay danga nga leen déglu ci li wax waaye cigarette bi ak pon mii fa lañ ko fekk. moom fa ñu fekk lii lañ fekk lii. waaw non bokkuñu sax. fañ fekk li ak fañ lekk li ci ay mool lañ ko fekk ay deux cornet trois cornet lañ fa fekk ay cinq cornet ñu fekk leen li ci benn mbuus dégg nga kon nag yéen ginnaaw yéen kilifa yi ñun lii lañ jëlee buntu Pikine donc comprendre nga. moom koy gaa buntu gaaraas ba ngay wax rek. dégg nga waaw dégg nga ñun lañ ci wax def nañ ko ci. lañ leen waxoon nag moo ci nekk mooy ni nga ni sëñ am sa joxe woon digal ni nañ dem dem nañ corniche ba dem nañ buntu pikin fépp la ñuy dem. li ci ci yéen la des yéen kilifa xam nga lii moom. la ma waxoon démb laay wax xam nga dëkk bii dëkku Serigne Touba sëriñ Serigne Touba lu mu tere lu ne yàllaa ko tere yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ko tere ñu baax ñépp loolu lañ tere te ñun doxuñu ngir xaaw yi suuta si kenn waaye nag li sëñ bi bañ moom dañ ko koy bañ le képp koo xam ne nag li sëñ bi li li li sëñ bi bañ di sëriñ Touba Cheikh Cheikh Mouhamadou Mourtala Mbacke mi fi ne ak euh, ñii nga xam ne ñoom la bokk sëriñ bi ci njiitu sëriñ am sa ak sëriñ Bassirou Mbacke képp koo xamante ni ne ñii liñ bañ bañoo ko fuñ la fekkee dañ koy jëflante ak yow waaw ndax ñoom liñ bañ lañ bañ dëgg la am na fi euh, ci dëkk bi oto yoo xam ne amuñu ay kayit dawal oto bu li kayit yóbbul kenn sawara waaye ñàkk jëfe ndigalal Serigne Touba nag. moo yóbboo sawara ndax sëñ Tuubaa lu mu tere lu ne yàllaa ko tere lu mu tere lu ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ko tere dégg nga kon am na ci loo xam te nii ne saa buñ ko gisee ñun képp ku baax ku ne woon nañ la ci tàllal nañ la ci loxo li sëñ bi bañ la ñuy bañ lim bëgg la ñuy bëgg xalaa ku liyalin waaw loolu mooy li nga xam ne mooy wax ji sëñ Basiiru léegi laa jokkoo ak moom bi bay ñëw waaw bi ko waxee na ko jàpp nañ fa cigarette ak yamba moom sax dafa tiit waaw lii nag ñu koy def dañoo xam rek waaye foo xam ne dañ fay sete dañ fa war a sete ku fa taqe foo jëm waaw kon dañ am loo xam ne nii ne ñoom li suñ mu leen daan wax naan yaa xam ne doo saaga dañoo xamadi waaw ndax yaa xamadi koo ko wax mu ne damaa saaga dégg li ma wax mm-hmm. waaye yaa xamadi mooy xamo waaw yaa xamante xamal ma moo ci topp ñoom nag dañoo xamante dañoo xamut waaw waaye dëkk bu selle nii borom sanc ko dégg nga attanuñ faa def lu dul lii lii ki koy def xam nga ne daa xamul rek waaye bu xamoon li ko ciy fekk du ko def waaw ne góor nag nii nii nii ngeen def rek la waaw ndax yéen liggéey bi ngeen liggéey wut sàkku leen ci ku leen ci fay weer da liggéey ngir jëm Serigne Touba ci Serigne Touba rek tax wax naa ko fii fee ca gaar ba lor nañ fa doomu aadama ñaari doomu adama ndax kenn ka dañ koo dóor bar de fer du ginnaaw bi la ci la làqu yéen a fa nekk ci biir taw bi nekk fa ba ñooñu jóge fa fa fa ngeen tabaski am na ñoo xam fay nekk ba ba ñu ne ci gaar ba xarum tabaski sax amuñu ko te loola dara taxul ñu def ko ngir ngir jëm yàlla ak Serigne Touba waaw kon yéen lii ngeen nekk lu dëggu la bu fekkoon da ngeen cee daboon lenn dégg nga wala mu fekk amoon lenn xam dañ leen ko ci fay pour nga mën a wax waaye yéen ku leen xool xam ne yéen li ngeen def yàlla rek a tax yàlla moo tax ngeen def na ak Serigne Touba day leen fay jërëjëf jëf bu lii nag ñoo ngi ko jëlee garage buntu garage su Daaru Muxti ñoom na ñoo ko tuddee buntu Pikine waaye borom moom tudd woon tudd buntu Pikine. bi day xëy day day xal di continuer wala daf lay yem. fas nañ ko yéene lii dañoo fas yéene mu sax ndax ñun demuñu di tuumaal kenn xaawi wuñ suturas kenn waaye li Serigne tubaa bañ ci dëkkam bii daañ ko ko bañ le xalaa kulli ali ñu ànd ko di ko bañ le ndax ñun sëñ bi dong lañ am amuñu lu sëñ bi sëñ bi lañ am waaw lii li sëñ bi bañ daal daañ ko bañ xalaa kulli ali lii moom dañoo fas yéene fuñ fi dégg loo xam te ni lu jaar wut la daañ fa dem nemmiku ba xam lañ fa wax lool la wala doon loolu bu fa bu fekkee loolaa fa nekkit ñu fas yéene loola service jërëjëf